bon euh, beneen bi mooy euh, ci président Macky parce que déjà loolu mooy débat bi mooy oui ou non bi gis ngeen ni président waxee ak ni ma xamee président kuy dem mooy waxee noonu. président Macky Sall am na fit ni ma ko xamee on a fait tous les combats à l'université Dakar 81 82 83 institut des sciences de la terre. on a mm. fait des combats ensemble xeex. président Macky Sall nekk na euh, dafa yor euh, fitu fitu fitu séeréer. c'est-à-dire quand il veut te dire quelque chose il n'hésite pas. Mm-hmm. loolu moo tax du tricher ci lu bëri. ci comportement ci ku bañ su la bañee dalay bañ ba nga xam ne dalay bañ. su la buggee tamit dalay bëgg ba nga xam ne dalay bëgg. Mm-hmm. président Macky Sall su naroon na euh, déclarer candidature am du waxee ak. kii eh, gars yi ni mu waxee ak ñoom déedéet du leen wax dem leen ngeen nekk benn soo leen nekkul benn da ngeen di ñàkk déedéet da leen di wax ni maa ngi ñëw maa leen di jiite te dinaa dem xëy na peut-être tey la doon xaar pour wax loolu mais ni mu waxee daf leen wax ne dem leen soyez unis hmm. ngeen defaruwaat xëy na dinañ am consensus ci koo xam ne dinañ jiite et ki ki leen di jiite mun na bañ a nekk de la per ah yaa ngi wax eh, Daouda jàlloo yaa ngi wax euh, par exemple euh, euh, comment dirais-je Amadou Ba mais mun na bañ a nekk ñooñu parce que c'est le Benno qui va choisir son candidat donc consensus la ci une grande coalition la coalition majoritaire mm-hmm. ci la mun a tànn te ñàkkul ñoo xam ne ils sont présidentiables ci coalition boobu mm-hmm. consensus rek la waxtaan mm-hmm. rek la mais li am importance mooy stabilité Sénégal ak paix au Sénégal le président Macky Sall a intérêt à dire que du ma def troisième mandat parce que su defee troisième mandat moom déjà euh, premier premier événement yi fi amoon mars euh, deux mille vingt et am na ay conséquences c'est regrettable ñu ngi jaale ñi ci wadd ñëpp mu ne woon lii dootu fa amee mais beneen ñëw am bu gën a garaaw mars euh, deux mille boobu déclarer candidature am bi foofu lay amaat est-ce que du ñu amaat lu gën a rëy loo xam ne mars vingt et un vingt et ak juin bi ñu bi ñu génn noonu la nar a doon on sait pas te yooyu yëpp moom daf koy mesurer moi je connais très bien l'homme du affaire ay yi moo koy menacé yu demee nag séeréer la c'est pas un tougleur <laughs> dafa am surtout boo xam ne moom su doon dee ci àll sax dina dina ko mais je pense que ni ma ko analyser nit kuy dem la dajalewaat ay troupam lépp waxtaan et je n'écarte même pas ñoom Idrissa Seck ñiy dem dellu si waat ci Benno Bokk Yaakaar ña demoon tamit mu jëlaat leen dugal leen ci benn Bokk Yaakaar créer une grande coalition majoritaire jàppale ci def campagne comme ñëpp dem présidentielle jàppale son candidat mm-hmm. parce qu'il a fait un bilan donc candidat bu président Macky Sall jàpp tu une chance